ci euh, réew mi euh, le ministre euh, Lo ah di nu mu tudd sax waay turam mu ngi may rëcc. Al Amin Al Amin justement merci beaucoup Pape musa expliqué ko ci terme yu simple wax ni bor boobu buñ koy natt ci Sénégal bu ne daanaka mu ngi yegg ci. 800 jàpp 900 nañ ma delloo man xamul nu ko marié laa nañ ma jox nañ ma jox bi rek. ñu ñu ngi koy ñu ngi koy jamono ji. oui Pape Moussa oui exercice que buñ doon xaar. Euh, ginnaaw yi ci président de la république waxoon junjoon ko ci bi muy sud assemblée nationale tey bu ñëwee lan nga jàpp ni moo ci yokk en terme d'info uuteeg li ñu daan wax démb ak barki démb te nga jàpp ni tey le premier ministre ñëw na ci. waaw Passeman euh, d'abord euh, je salue l'acte de courage du gouvernement du Sénégal de courage mais aussi de de de de de d'honnêteté envers euh, la population bi nga xamante ne moom moo leen fal parce que effectivement il leur doit il leur doit la vérité euh, te de gis nga au cours euh, de la communication peut-être am na risque waaye am na risque. te laaj nañ sax ci risque yooyu waaye. mais malgré euh, risque yooyu noonu lii lañ warloo ak askanu Sénégal bi mooy dëgg boo delloo ci ginnaaw tuuti am na benn moment. Pape Alé bindoon na lu nu mel. nañu wax euh, waa kay. parce que effectivement risque bi ci nekk ba tax ñii di jiixi jaaxa est-ce que yenn yi boo ko waxee ça ne va pas écorner l'image du Sénégal notamment euh, ci signature am mais euh, risque maîtrisé la parce que man jàpp naa ne partenaire bu mu mënti doon nga ñëw tenir ak moom langage de vérité euh, xëy na sax dafa dafa la war a gën a jàpp boo hérité d'une situation tu hérites de l'actif et passif alors ñoom dañoo ñëw alléger seen passif frauduleusement mm. yow boo ñëwee hérité benn actif boo xamante ne nee nañu la un la alors que en réalité cent la mais après yow boo naree dekk dina baat loolu yow yaay subiir les conséquences lan moo la nar a fekk da ngay jékki-jékki rek ngiroo ci biir dette bi te loolu daloo na Sénégal jamonoy régime socialiste euh, daloon na Sénégal ba à un Séné euh, moment donné mais on était obligé euh, de faire des ajustements structurels. Ah. det noo maîtriser moom moo koy def. donc situation boobu noonu lañu régime bi jóge fii naroon na yóbbu bu doon nit la danga nga naan kii. dafa endetté ba mënatul maanaam mënatul defati benn dépense moom ci coobare boppam eh. bu dee entreprise la ñu ne la kii dem na fayit parce que l'actif disponible ne eh. peut pas faire face au passif exigible il est en cessation de paiement eh. alors donc situation boobu noonu mënoo ko hérité ba pare nag war a def cell ak moom sa diggante ak sa askan mu mel ni sax ci waxtaan bi ñu convoqué woon cell la ci naroon génn ba ah. président de la république ne duma ko def su ma tàmbalee bañ a wax li am mën na am noonu la ñuy ne di ñàkk a wax. c'est ah. kon du ma tàmbalee ci lu dul dëgg du ma doxalee ci lu dul dëgg te duma ma jeexalee ci lu dul dëgg alors léegi nag ni ñu joxee la réew ci anam boobu noonu faw nga wax ak sénégalais yi ne leen situation bii nii lañ fi fekk vous vous rendez compte Macky Sall xam nga ñaata la jëlee dettu Sénégal mille milliards. yóbbu ko ba 15000 milliards 15700 et quelques milliards. vous vous rendez compte de cette euh, gis nga catastrophe boobu noonu dugguñu ci masse bi moo gën a doyati waar parce que maanaam mun munoo ne Sénégal lii mooy euh, masse salariale bi gis nga malgré ni sénégalais yi choqué ci ban vampire lañ jugee nii ci c'est-à-dire c'est du vampirisme économique quoi ci lan lañ jugee nii teewut man gëm naa ne. Hmm. li ñuy wax li des ci pour wax ji. je te jure que ni. xaajaguñu yegg sax vingt pour cent des. Euh, ci li ñu waroon problème yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi. wuy déjà am na lu mu ci laaj deux mille cinq cent mi deux mille cent milliards yoo xam dañ ko dépensé ci soowu euh, secret defence mais c'est incroyable parce que yooyu. day delluwaat ci même bu koy voté à l'Assemblée nationale sans débat. mais doo ko gis. ba léegi fa doon dugal contrat bu ci bindee secret défense. lan lañ fa doon ko lan lañ fa doon dugal. pour leewal ko lu la neex lu la neex. maanaam euh, buñ bu mais c'est ce qui s'est passé avec euh, le contrat Dakarnave. ah dañoo ñëw dóor ko secret défense loolu kenn xamul ñaata ay contrat la ñu ñëw dóor ko secret défense kenn mënatugul tijji du benn structure bu koy contrôler secret défense. ak beneen six cent et quelques milliards yoo xam ne leb nañ ko te xamul fu mu jaar. six cent cinq milliards. six cent cinq yoo xamante ne waa xoolal loolu ñaata ñaata hôpitaux la mën a tabax. franchement ñi amuñu xol am na dëkk yoo xamante ni ci Sénégal maanaam bu nit bu fa feebaree amoo foo fajoo ci fii ci Sénégal demal daaru mbàpp ndox bu ñu naan problème la ndox service minimum de base Sénégal am ay euh, dëkk yoo xam ne ba léegi ay soxna bu ñuy matu dañu yéeg ci ay charrette dox ay def ay kilomètres nit am xolu taxaw téye di jël maanaam cinq cent cinq six cent cinq milliards yu kenn xamul fu mu jaar xanaa foofu la haute trahison ya alors ñooñu noonu ñu doon taxaw naan ñu ay taux de croissance de nangam. taux de croissance mais mais mais lii la ñu doon wax ko donc impérativement régime bii nii pour mu mën a wax sénégalais yi situation bu ñu fi fekk ak lan la ñuy war a mën a def nag ba tegu ci raay. Ah. tegu ci raay. parce que euh, nee na la sous-sol euh, quatrième étage sous-sol nga dal waaw foog nga yegg ba ci surface bi nag pour tegu ci yoon bi alors lu mu metti metti metti metti man jàpp naa ne en fait ku def lii ci réew yow waratoo woon na am xolu taxaw ak sénégalais yi di leen xool oui mais bu dee ne ci niveau bii la la yàqu-yàqu yi egg mais fii ko premier ministre jeexale lañu comprendre oui mooy su nee ni ñoom dañu war a expliquer wu sénégalais lambda buy déglu dafa bëgg wax ni rek ah waa kon ñu génn rek ne ñoo ko def wala defuñu mu yem fa. non loolu loolu loolu moom premier ministre. ah moo wax lu ni mel. fu muy yegg kon. Euh, xam nga lu ma neex ci Ousmane Diagne <laughs> ak bëri ful la waxam dafa gàtt. di <laughs> nga ko joxe lu gàtt xaaroon nañ ci moom sax. Ousmane Diagne a yaatu. lan la loo ci déggee Ousmane Diagne ñàkk <laughs> foofu la premier ministre foofu la mën a yem nañu expliqué. Eh. waaw léegi nag. autorité judiciaire yi ñoom ci leneen la ñuy dem ah. or euh, il faut il faut que il faut que ñu ñu ñu soucier des finances publiques en fait ces gens-là jouer avec nos finances publiques parfois de manière flagrante day gis kenn dañ lay fal léegi nga am train de vie bu kenn xamul lii lu mu doon hmm. di jël mais xam nga contrat sax la ñuy dóor euh, secret défense mais ay marché yu existé wul fictif ñu laal la bon rose xam nga bon rose. mooy. maanaam bon bi daal dañ ciy bind ne marché bi nangam la def nga nangam def nga nangam mosoo gis loolu de fi au final temps lañ lay fay ñu jox la ko jeex na tàkk nga encaissé sa xaalis dem sa yoon nee nañ la exécuté nga marché boo xamante ni existé wul alors maanaam bu euh, buñ euh, buñ naroon a def ñoom conférence de presse pour def. pratiquement lépp loo xamante ne régime bi def na ko ba mu yegg si ba fii fii ba suba conférence de presse. te annoncé nañ ko nañ ñëw mais tudd nañ ci euh, ancien président de la république tudd ci Abdoulaye Daouda Diallo tudd ci Amadou Ba tudd ci Moustapha Ba. Mm-hmm. looy xaar ci ñoom ginnaaw tudd bi ak bu ñu ne war nañoo expliquer. non man da ngay man da nga naan devrait être le seen poste. non da nga ma naan looy xaar ci justice. le premier ministre il est dans son rôle. Euh, mm. oui nañ expliquer. peut-être peut-être dinañ waaw ñoom peut-être dinañ. mooy xaaroo ko euh, bon lan la ñuy expliquer. weddi xëy na li ñuy wax ni amul déggoo xanaa déggoo euh, le premier ministre. nee na bañ toogee azalaay woo nañ ministre bi weddiwul. te tey lay weddi. tuddul kan la de Moustapha kay. tudd tudd ko tudd na ko kay. Ah. le ministre des finance weddiwul di kon lu muy wax. waaw dañ leen muy ju yoon euh, reddition des comptes il faut qu'ils rendent compte ce n'est pas du du lu metti quoi lan lan lay euh, nga ne way dette bi lii la après le ministre lui-même te dit que nii way noo xam ne ne du lii maanaam yow partenaire u yi dañ lay lebal sur la base de faux da nga leen di mm. jox une mauvaise présentation de la réalité pour mën a jël seen xaalis. chiffre erroné. waaw mais bien sûr l'utilisation de moyens frauduleux pour avoir. Euh, gain de cause. waaw ah. loolu la la. c'est réprimé par la loi. ah mais impérativement. Khalifa Sall xam nga lan lañ ko daal escroquerie au denier public. escroquerie mooy l'utilisation de moyens frauduleux pour se faire remettre un bien appartenant à autrui alors l'utilisation de moyens frauduleux pour avoir des prêts comme ça nga jël ay chiffres maquillé ko du faux. e de l'usage de faux. gën kaa gàtt ñaata ànd kaso. Euh, loolu kay euh, du benn infraction rek sax. loo bëgg wax mën nañ enclencher ay procédures à partir du moment que infraction bi constaté ko même bu fekkee l'ancien président de la république même bu fekkee yow la ñuy jiiñ ni jamono ji yow yaay chef de l'opposition. kii sax Amadou Ba. chef de l'opposition amul euh, immunité non chef de l'opposition ça n'exonère pas ta responsabilité pénale ah. ku mënti doon. non c'est-à-dire chaîne de responsabilité yi moom franchement foo jaar faw rek euh, di ku ci nekk di nga assumer li nga xamante ne moom moo ci sa part da nga koy assumer pleinement nag parce que dina am ay assum euh, ñoo xamante ne mën nañu assumer partiel mais Pape Moussa man li ma bëgg a laaj moment boobu corps de contrôle fu ñu nekk ay IGE ay cour des comptes yi ñu am ni yëpp. IGE présidence la nekk di. waaw d' accord mais cour de contrôle. waaw xam mais comment comment on peut orchestrer. toute mafia économique. justement sous le nez la barbe. alors que nous on a des corps de contrôle des structures. xam nga yàgg na doon une demande. ñu ne corps de contrôle yi nañ leen génne nañ leen libéré. kon kan moo leen tënk pour libérer la président ñaata yoon la IGE def ay enquête am ñëw mu tegee ko nag. encore que yëpp ci corps yi ña ngay logé à la. présidence c'est-à-dire loolu moom mooy problème bi da nga leen di war a jox seen autonomie may leen seen indépendance doter leen des moyen Macky Sall pour man li fi xew yëpp premier responsable bi moom la parce que moom moo doon jiite ñooñu noonu ñuy wax yëpp ils exécutent dans le cadre euh, d'une politique globale définie par le président de la République. léegi Pa Moussa en tant que juriste Euh, bu ñu doon poursuivre Macky Sall ci ci ban anam lañ ko mën a poursuivre. surtout ci cas bi. ci kaa bi. non xam nga dafa am privilège de juridiction. waaw mais tekkiwul ne amul juridiction am na privilège juridiction bu ko mën a àtte. c'est-à-dire. la haute cour de justice. te amagu fi. mais déet haute cour de justice kan moo koy teg. assemblée nationale assemblée nationale la ñu jëm. donc donc mën nañ topp Macky Sall si haute cour de mm. justice. Ah, bien sûr loolu tax haute cour de justice. taxaw di ci par exemple. haute trahison nee nañu. haute trahison parce que wax na mais c'est quoi la haute trahison. terme fourre-tout. waaw euh, disons. sur le plan doctrinal am na ñu ko. Euh, définir waaw jox ko définition définition di doctrinal. au sortir de la conférence du du premier ministre. que que Macky risque d'être traduit en justice pour haute trahison. c'est man je pense que ni Macky Sall doit rendre compte. je le pense impérativement. il doit rendre compte parce que la réduction des comptes c'est un impératif. léegi nag moom bu assumer li mu def ci responsabilité ñeneen ñi tamit bu ñu ñëw ñoom it ñu assumer parce que aussi attention. Hmm. munoo def lu ne weng ñëw ne Macky moom moo ko sant. la responsabilité pénale est individuelle. parce que dina ci am ñoo xamante ne pour essayer de se dédouaner. dinañ ñëw way di jéem a taqal taqal lu Amadou Sall na Macky Sall nangam képp ku def ñu ne la kii ñëwal assumer li nga xamante ne yaa ko def parce que la responsabilité pénale est individuelle. du Macky Sall la du jabootu Macky Sall ngay jéem a taqal pour jéem a rocci sa bopp déedéet nañ ci génne loolu te ku ci nekk assumer li nga xamante ne yow moom nga def à titre de responsabilité ku ci nekk nag parce que la responsabilité pénale est individuelle. Hmm. alors mën lañ lay teg ci bërëb direction ministère nangam nga def fa loo xamante ne yow à titre personnel la responsabilité pénale yow lay engagé. Hmm. te bëri na fi. alors donc kon euh, li tax mu am solo mooy exécutif bi foog mu lijjanti problème mu sénégalais yi. oui le quotidien des sénégalais mu ngi fi. Euh, coono ak askan bi mu ngi fi. courant bi mu am ku ko lijjanti. et c'est ça l'exécutif justice bi lijjanti moom it li nga xamante ne moom la war a lijjanti parlement bi boole contrôler l'action du gouvernement et a assiste à une séparation stricte mais une séparation efficace des pouvoirs. loolu moom moom laa daama ñëw ci Cheikh euh, Oumar Talla dafa am benn laaj boo xam te ne gis naa benn euh, taskatu xibaar bu ko laaj le premier ministre yaakaar naa suma juumul suñu benn conseiller bu nekk Walf tudd Cheikh Diba. Hmm. maa gis le premier ministre mu ne moom comprendre laaj bi. mais tontu na ko ne su dee ni da nga bëgg a dara ci responsabilité am. su dee lu manifeste la boobaa dinañ xam nu ñu def du ñu protéger kenn. waaw alors Cheikh Diba dafa fekkee. Mm-hmm. dafa